asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp xaq te di leen baalu xaq tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal eh, tey nag dafa am benn mbir moo xam ne yàlla dafa dogal jamono yi yëpp dafa nekk sama xel mi eh, mu nekk loo xam ne xam naa léegi mu ëpp weer day falal di nekk sama xel mi rek ma ne woon eh, dinaa ci def benn audio maanaam partagé ko su ko defee xëy na nit ñi dinañ ci mën a am solution mooy euh, dama seetlu dafa mu bëri ay question yoo xam ne euh, ay mbir yoo xam ne dañ ko tuddee mbiru dañ ko tuddee mbiru diine euh, ñu di ko jàngal nit ñi bu yàgg ba léegi dëpp suñuy maam nit ñi gëm ko gëmin woo xam ne gëmin wu jéggi dayoo la te fekk na mbir yooyu su ngeen xoolee ba ci biir li muy yàq bari na bari goo xam ne ci société bi li muy jur ci ay tàqalikoo bari na bari goo xam ne ci société bi li muy yàq ci diggante ay mbokk bari na bari goo xam ne ci biir société bi li muy jurit ci ay problème bari na bari goo xam ne ci biir société bi te nit ñi dafa mel ni ñemewuñ di ko aborde complètement mooy li nga xam ne moo aju ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee comme comme li ñuy wax doom bu judduwul ci yoon ak la nga xam ne moo ca aju mooy njàngale yi nga xam ne moom la ñu ci daan jàngal ci téere yi comme li ñuy wax alwaladu lil firaash comme ni nga xam ne noonu lañ koy jàngale ak li ñuy wax wala du zina euh, mu nekk ay mbir yoo xam ne nag euh, gis-gis bi ma ci amoon mooy bëggoon naa lool waa réew mi ñi fi nekk ñu leen di tuddee ay boroomi xam-xam wala ñu fi nekk ñu leen di tuddee ay kilifa diine ñu fexe ba organiser lu mel ni ay waxtaan walla débat ci sujet boobu pour waa réew mi mën a xam lan mooy dëgg ak lan moo ci dul dëgg parce que dama gis ne sujet la boo xam ne li ci aju ci ay problème dafa bari te li muy discriminer ci ay nit dafa bari li muy lor ci ay doomu aadama dafa bari te nekkul lu yàlla jàngale lu ay nit yoonal la tëral ko ñu di ko jottaliwante di ko jokkalante ba mu yegg si fii mu bari loo xam ne da koy yàq ci société bi bari loo xam ne da koy loo xam ne da ciy créer ay problème ci biir société bi ci yenn xale yi muy jur ci ñoom xeetu vulnérabilité nga xam ne comme li ñuy wax ne xale boo xam ne dañuy wax ne judduwul ci yoon ñu ne maanaam yaay jee ko moom baay ji amu ca wàll donte ku déglu waxtaan yi nga xam ne jot nañ ko ci def parce que yàgg nañ cee wax ñun defoon nañ ci vidéo depuis deux mille dix neuf euh, defaat nañ ci tamit émission yooyu lu ci yàlla ji wax euh, te it yàggul dara aussi daanaka loolu ñu ngi ci wax ci wàllu njaaloo li ñuy wax affaire rajmu mu xeet yooyu nga xam ne li ci aju yëpp ci wàllu ay àtteeg xeet yooyu loolu bëggoon nañ lool maanaam nit ñi ñi nga xam ne dañoo dañoo gëm loolu nga xam ne moom lañ jàngale woon bu njëkk ba. ña nga xam ne la tuddee ñoom ay boromi xam-xam ak ña nga xam ne la ñuy tuddee seeni kilifa ci wàllu diine au moins ñu fexee def ay lu mel ni waxtaan walla débat mu nekk loo xam ne nit ñi dañ ciy mën a maam édifié wu xam lii dëgg ak lu dul dëgg parce que kuy dellu ci alxuraan lii dëgg ak lu dul dëgg moom lu leer la mais pas pour ñoom ñi nga xam ne dañuy tuddee ay boromi xam-xam parce que ñoom suñ déggee ñoom suñ déggee li nga xam ne moom la yàlla jàngale suñ ko déggee dañ koy xam mais seen problème mooy loolu day mel ni dañ koy ragal wax nit ñi wala boog dañuy ragal nit ñi lañ leen daan wax ñoom bu yàgg ba dañuy ragal ñëw ne leen ah waa loolu kat loolu lañ leen daan wax waaye loolu ndekete wérul léegi nag dañ fiy bàyyi maanaam loolu mu nekk genre. maam mu nekk genre secret lañ koy wax xaw ma mu nekk genre lu kenn xamul mu nekk ci société bi di continuer di yàq ñoom ñu mën koo corriger wax nit ñi li yàlla wax nit ñi mën a xam ne kon lañ leen doon wax démb dara boolewu kook li yàlla jàngale mais dañuy taxaw fi ñu taxaw maanaam duñ ci nangoo wax doonte xam nañ ne yàlla li mu jàngale bokkut ak li nekk ci téere yi te teewul li nekk ci téere yi moom lañ jàngale woon ci société bi muy continuer di yàq ci biir société bi di créer ay problème ci biir famille yi ñu xam ko te ñoom duñ ci wax dara parce que gis ne problème boobu wax dëgg yàlla maanaam li nga ciy jot ci ay éco yow des fois da ngay dem ba benn instant boo xam ne sax yow sa bopp sa xol day métti yow sa bopp sa xol day naqari te li ko waral lépp dara du ci dëgg lii jur jafe-jafe yooyu yëpp dara du ci dëgg te ñi nga xam ne ñoo ko gëm di ko wax nit ñi depuis bu yàgg ba léegi ñemewuñ ci débattre ñemewuñ défendre seen position ñemewuñ seen gëm-gëm boobu ñu ñëw teg ko indi li yàlla wax xool ndax ñoom lañu wax ak li yàlla wax benn la mais dañuy def teg bàyyi nag yàq googu loolu ñu leen jàngaloon te ñu koy jàngal nit ñi yàq ga muy jur ñu bàyyi ko yàq googu di gën a wéy di gën a law ngir ran sóor nit ñi li nga xam ne moom lañ mën a wax te yéen loolu seen yoon neewu ca lii lañ leen jàngaloon lii ngeen xamoon ñun ñii loolu la ñu jàngaloon lii lañ xamoon su ñëwee ba xam ne lii bokkut ak li yàlla wax te far sax lii nekk luy yàq nekkul luy defar te nekkul lu yàlla jàngale nit ki ban la war a am dellu ginnaaw ne ah, lii kat ñun ñoo ko daan wax waaye lii bokkut ak li yàlla wax ndax ñun dañoo toppoon ay téere loolu la ñu jàngaloon waaye dem nañ ba gis ne lii bokkut ak li yàlla wax waye sour nit ñi bay yàq ay dundu nit te sóoroo yàlla sa borom mi nga xamne mo la bind te lu mën xew nit ñi ñom duñ la àtte ëlëk lu mën xew nit ñi duñ la ñom du ñom ñolay wërsëgal lu mën xew nit ñi du ñom ñolay ray yàlla mo lay ray mo lay àtte ëlëk lan moo tax ba mënuñoo sóor yàlla moomu di wax nit ñi lay dëgg gi ba nit ñi mën a xamal seen bopp lan mooy dëgg gi ba tax lañ leen jàngaloon démb mu nekkoon loo xam ne day yàq ci société bi ñu mën ko corriger lan moo tax ba loolu mënta nekk lii li tubaab di wax cri de cœur la xaw ma lii li tubaab tubaab noonu la ko wax yaakaar naa cri de cœur parce dafa nekk mbir moo xam ne. man à chaque fois dama ci bàyyi xel sa yo ci sa yuñ ci du xam sa yuñ publier ab vidéo mo fa fan yi nii am ku doon sàkku ñuy def ñuy dugal ay vidéo comme wa Nihma TV di dugal ay vidéo ci TikTok bi ñu koy def mais souvent da ngay gis xeetu réaction yi nga xam ne moom mooy revenir xeetu problème yi nga xam ne àtte yi moom la jur moo xam la ñuy moo xam la ñuy wax alwaradu lil firaash wala li ñu wax waradul zina te ñi ko gëm nanguwuñ koo défendre ñi ko gëm ñemewuñ koo défendre ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wax nit ñi di leen ko jàngal depuis bu yàgg ba léegi wala ñoom ñu transmettre loon ko ñoo xam ne dañ leen ko transmettre loon xam ne ñoom dañ ko jottali woon ñoom ñu di ko jottali ñemewuñ ko défendre ñun dañ ciy wax mais dañ naan tekk mel ni ñu fi newul di nekk ci suuf di wax ak seeni nit ci suuf yàq boobu nga xam ne maam seen njàngale moom moo ko jur muy continuer di yàqu te loolu di yëfu seytaane gu leer nañ lan moo tax ba ñemewuñ koo défendre lan moo tax ba ñemewuñ ko défendre lan tax ba ñemewuñ indi parce que loolu mënut a nekk sax amuñ ci benn preuve buñ mën a saxalee loolu ba pare di ci yàq ay dund ndax preuve yàllaa koy wàccee amuñ benn preuve buñ mën a saxalee yooyu ñuy wax ay di wax naan doomu njaalo du doon eh, kii kii nu mu tuddati waaye du doon imaam maanaam lu mu jaamu jaamu yàlla du dem àjjana laaraaf lay jëm baay ja amu ca dara yaay jaako moom ba pare ci wet gi ñu ñëw jàngale comme loolu ñuy wax ñoom alwaradu lil firaash mu mel ni léegi par exemple jigéen boo xam ne dafa nekkoon ci sëy génnoon maanaam de dem feneen am keneen ku mu séqal yàlla dogal mu jëlee foofu ëmb mu ñëw léegi ci kër gi te fekk na am na borom kër moo xam borom kër gi dafay nekkul ñu ne léegi kooku nga xam ne ku jigéen kooku nga xam ne dafa génn amee feneen doom ñëw moom doom jooju mu am te fekk na boobu mu ngi woon ci buumu sëy te borom këram juru ko ñu ne borom kër gi moom lu mën a xew doom jooju doomam la doom jooju moom da koy doon waaye boroom kër gi moom doom ji nga xam ne moom da koo am te ñu nekk ma maa kam ko amal takk ko woon kooku moom ñu ne moom doom jooju nga xam ne moom leer na ko ne moom moo ko jur ñu ne kooku moom du ko doon ñu ne kooku matul imaam ñu ne kooku lu mu jaamu-jaamu yàlla laaraaf la jëm kii nga xam ne nag yaayam daa def lii ñëw ñu ne ku góor ki yow danga koy jël leer na ne du sa doom waaye danga koy doomu dalay doon moom it dina la doon te kee nga xam ne leer na ne yaa ko jur doo ko doon moom du la doon kii nga xam ne sa jabara ko jur te fekk bu nekkoon ci buum yow nga ñàkk fee nekk mu dem feneen lijjanti fa ab doom ñëw ñu ne kooku moom doom jooja ci sa buum la juddoo dalay doon su dee woon it da koy doon ta bàyyiwu fi su ma su dee woon te bàyyi fi dara koy doon waxuñ ne moom du doon imaam waxuñ ne moom du doon imaam waxuñ ne moom maanaam laa araaf lay jëm waxuñ lool de te yow ku góor ki leer na ne yow kii juróom wala léegi njaalo moom nit ñi dañoo jàpp ne suñ ne njaalo te loolu bu ñu wax ne sangewu loolu loolu ba tey ci debaa ba la bokk li waral sen até bobu ñuy wax ci walu rajm lolu wax nañ ci ay yoon yoon lam motax ba li lii wuñ ci débattre édifier ci nit ñu xam li xew mais nga gis nit ñi fi sen xel tollu ak fi bassesse bi seen xel yi tollu ak ni sen xel yi torduwee des fois da ngay gis sa ngay ñëw di wax li yalla wax ñu naan ah wa ki sax mom est ce que mom nekul lolu mom mom lolu la lan moo boole loolu wax li yàlla wax ak yow ñu ne yow doomu nàngam walla wala nàngam nga gis sax ma xeetu état d'esprit yi nga xam ne nit ñi loolu lañu def ci ñoom lii wax dëgg yàlla maa ngi sàkku ci maanaam képp koo xam ne yàlla dogal la nga déglu audio bi nga transféré ko ngir jëmmi yàlla ji may sàkku ñi nga xam ne ñoo doon jàngal loolu nit ñi nañu xool dem ci téereb yàlla xool ndax lañu gëmoon mën nañoo am benn aaya ci téereb yàlla ba téereb yàlla mat ñu xool lañu leen jàngaloon ci la ñuy wax ay doomu njaaloo ak alwaradu lil firaash te da rawatina sax li ñuy wax alwaradu lil firaash loolu aaya yu leer naññ la yàlla wax ci biir sootu ahzab aaya 4 ak aaya 5 li yàlla di wax fee di wax di yàlla fi muy wax naan maa jaala allahu li rajulin min xalbayni fii jawfihi li muy wax ci biir aaya ba udduhuhum li abaihim huwa aqsatu hindallah fa in lam taalamu abaahum fa in lam taalamu abaahum fa ixwanukum fi ddiini wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fi ma axtatum bihi walakin ma taammadat xulubukum wa kaana allahu gafuran rahima li nga xam ne yàlla da koo jàngale mu nekk lu leer naññ ci biir alquran ñëpp xam ko ñoom ñu ñëw seen téere yi jàngale leneen ñu ñëw seen téere yi jàngale leneen loolu nag ñu gëmloo ko nit ñi nit ñi gëm ko mu jur nag ay problème yu baree baree bare ci famille yi li nga ciy jot ci ay xeetu retour li nga ciy jot ci ay témoignage képp koo xam ne yàlla defal na la ndimbal nga nam ma am ndimbalul yàlla te leer la na ñii di wax lii lañ gëm noona soo leen laajoon jox leen ma benn aaya boo xam ne day saxal li ngeen gëm ba keroog àdduna tukki duñ la ko jox te teewul ñu ngi yàq ay dundu nit ci caaxaan yu mel nii te teewul ñu ngi yàq ay dundu nit ci caaxaan yu mel kon képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel yàlla sa borom lu mu néew néew ñi jàngaloon la leneen lu wuuteeg lii loolu ñoo ngi la koy bàyyiloo xel waxal nit ñi li yàlla wax parce que ñaar moo mën a nekk benn li nit ñi jàngale mu doon dëgg li yàlla wax du doon dëgg wala li yàlla wax doon dëgg li nit ñi jàngale doon ay fen ñaar yooyu rek moo mën a nekk li nit ñi wax doon ay fen li yàlla wax doon dëgg waaye li yàlla wax moom nekk loo xam ne wérut li nit ñi wax doon dëgg ñaari rek moo mën a nekk te lii di yàq xam lépp ay yàq la lépp ay yàq la lépp ay yàq la lépp lépp lépp ay yàq la mooy li yàlla di wax ci alquran ci suratu anaam aaya cent douze cent treize فرمت آية 112 بلوم وخرك وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدو ونشياتين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون لي موي لي أم لي أي شياطين الإنس نيوكو دوغل تي دينا جي تنيوني أي كليفة لنيني جابي دنيني جابي أي رفرانس دلين تودي أي برومي خم خم يو خمول te xeetu yàq yii yëpp ci ñoom la jaar ñu bind ko ci ay téere nag bàyyi ko fi ñu indil ñu ko ñun jàngal ñu ko kon ñun ay victime lañ ñu ñu ko daan jàngalit ay victime lañ gëm giñ ko gëmoon it ay victime lañ ca woon mais suñ demee ba xam ne lii bokkut ak li yàlla wax luñ war a def ndax dañuy sax ci di dëggal la nga xam ne moom la téere yooyu wax wala boog dañuy dëggal li yàlla wax ndax ku dëggal na ca téere di li yàlla wax ku dëggal ni yàlla wax weddi la ca téere ya kon lan moo tax ba lii mu munuñ ko wax ndax ay problème képp la ay problème kepp la ak yàq képp la jëmul fenn ak yàq képp la jëmul fenn ak yàq képp la di ci yàq ay dundu nit lu ne lañ la ciy expliquer lu ne lañ la ciy expliquer ay problème yu mu jur ci biir société bi lu ne lii nag wax dëgg yàlla moom loo xam ne la lu métti suñu xol la loo xam ne lu jéggi dayo la loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ñi nga xam ne surtout rawatina ñi nga xam ne la tuddee ay boromi xam-xam ñu nekk fii ci réew mi responsabilité bi ñu am seen kanamu borom ëllëg ñoom seen bopp war nañ koo xool moo xam fu ñu mën a bokk nag ci seen kuréel yooyu nga xam ne moom lañu ñu am ndax lii ay wax la yu wéradi ay waxu yàq la wax yu bon yoo xam ne ku ko gëm yaa ngi weddi yàlla ku ko gëm rek yaa ngi weddi li yàlla jàngal te nit ñi li ngeen leen di wax moo tax ñu dem ba gëm ko kon yéen a ngi leen di weddiloo yàlla te ñoom xamuñ ko yéen a leen di yàlla te ñoom yëguñ ko kon yéen am ngeen responsabilité bu mag. ci rétablir dëgg gi nit ñi xam luy dëgg xam ne li yàlla wax ak lii du benn lee lañ ñu jàngaloon ñun ñëpp ñun ñëpp xam nañ loolu waaye nag lañ ñu jàngaloon daa wérut ndax dafa waroog li yàlla wax nañu wax nit li yàlla wax mu jeex nit ñi xam lii dëgg ñi nga xam ne tooñ nañ leen ba ñu bàyyi fi ba dee loolu weesu ñu jéggalu ko yàlla suñu borom يا من تاب يعلمه من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا لي خمنا ويسنا نكتب توب لم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولاك يبدل الله سيئاتهم حسنات نيو توب جيغلو يالا لاغا خامن موي لي جيتو سوني بروم سوبيل نيوكو ديفال نيوكو اي رافتال suñ borom maanaam suñ borom soppil ñu ñaaw téef suñ borom soppil ñu suñu ñaaw téef yooyu mu doon ay rafet rafet mais suñ toogee di suur nit ñi la ñuy wax ak su boobaa nañ ñuy gisee ak nañ ñuy nàngam di continuer di yàq ay dundu jàmbur te li yàlla wax fee su boobaa da ngeen yenu seenu bi yen ëllëg yenu ma dangeen yenu seenu bi yen yenu ci yenu ña nga xam da ngeen leen a ci lu dul xam-xam. يالا واخنا لي يحملوا اوزارهم كامله ومن اوزار الذين يدلونهم بغيرهم من الا ساء ما يزرون يم سينو بي ين داغن كوي ينو بام مات سك با باري ينو تي ينو نيغا خامني داغن لين ريرال تي دولول خام خام تا واخ دغ يالا لي نيني واخ نيت ني دو خام خام دو نجانغلم يالا دو دار اي نيت ньо ньо واخ سين واخ تيغول فين امول بن تيسلا امول بن تيلو واي loo xam ne li ñuy wax maa anzal allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ca benn preuve benn preuve amu ko ñu koy jàngal nit ñi mu sax fi te nekk loo xam ne day yàq ah wax dëgg yàlla daal message bii di rek ko waraloon lii daal bëggoon naa benn nit ñi kenn ku ci ne maanaam nga am kàddu di wax nit ñi di la déglu rétablir dëgg gi nit ñi xam liy dëgg gi su fekkee ne da ngeen a gëm ne li ngeen gëm ci lii mooy dëgg nañ ko organiser débat publique ñu indi li yàlla wax teg ko ngeen indi li ngeen gëm teg ko ñëpp xam ne li ngeen gëm du tuus su dee loolu ngeen wax nit ñi lii dëgg ñu xam ko su ngeen ko mënul nañu organiser ci réew mi débat public ci sujet boobu débat public ci sujet boobu ñu indi li yàlla wax teg ko li ngeen gëm ngeen indi ko teg ko ñu xool ñëpp dinañ xam ne li ngeen gëm du tuus. te yàq képp lay def defarut day yàq kon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum